maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp instant yi ma wax ak yéen dañ maa dóor a dóor a dóor bi muy bëgg a dee fi mu toll nii wax sax mënu ma ko ndax de pare pare doon def sama journal di waaji direct génn boobu di vingt heures sax mooy doog a jot tegalul sax trente minutes yor naa sama autorisation et tout boo xamante ni préfet moo ma ko jox nekk sama liggéey policier bi ñëw fekk ma fi di ma dóor policier bi nag xàmmee naa ko bu baax a baax parce que amul benn droit may autorisation ku toll ne préfet jox ma ko may taxaw di liggéey mu gis suñu matériel bi ñuy liggéey xam ne foofu fowuñu doxuñu mu li ma dóor kon nag yéen ñi nga xam ne yéen a wut ay autorisation bee boo ngeen xam ne autorisation yi jëriñul dara te lu ñun ñii ñëpp ñoo ko war a jóg xeex ko parce que tamit information dafa war a am te force day am buñ ko autorisé personnel médical war nañ kaa autorisé presse bi ta li ma dal mën naa dal kenn ku nekk ci ñun